bokk ci kanam nag <laughs> <laughs> comme damaa jox sama kàddu feneen. Uh-huh. li ma mën a wax mooy en tout cas kontaan naa ci toog ci table ji mais man li may gën a wax. Uh-huh. mooy damay wax toujours une élection ne sa gagne pas elle se perd. te beneen bi si topp l'apprentissage de la démocratie se fait dans la douleur que les prochains gagnants ou bien les gagnants félicitent euh, soient félicités par les perdants et que les gagnants encouragent les perdants. Mmh. et que ñu xam ni Sénégal. donc dafa war a jëm kanam et puis am nañ yeneen échéance wax naa ni perte élection bi du rax rek dangay ñàkk doole beneen bi si topp mooy loolu rek laa bëggoon a yokk sànq dañ ko fàttee wax en fait ñiy gagné maire yi li leen di yóbbu élection présidentielle mooy dañuy am des grands électeurs parce que les maires vont être des grands électeurs. looloo defoon la différence entre Idriss ak Ousmane Sonko en 2019 Idriss Seck dafa amoon plus de maires yu ko topp Ousmane Sonko amul woon ay maires boo xoolee loolu foofu sax ko rawee donc si l'opposition a des mairies yoo xam dañ am importance dañuy am benn outil mais aussi dañuy am de grands électeurs et ça va changer la donne politique il y aura une recomposition. nguur gi aussi bés bu génnee ci élection yi am ci taxawaayaat bu bees opposition bi bu deful ndànk dinañ ko gën a affaiblir te bu boobaa noonu élection yi di ñëw boo deful ndànk su ñu nekkee état de grâce il peut donc euh, y avoir la possibilité ñoom boobu ñuy wax ñu ko réaliser. Mm-hmm. donc je pense que en réalité Sénégal qui gagne et qui en bénéfice. pour son système politique institutionnel et ñu lay jaajëfal bu baax a baax professeur Ngouda Mboup muy accompagné woon depuis euh, début euh, lii di euh, plateau spécial bi nga xamante ni rek soxla woon nañ moom it li nga xam ni moo di ay analyse am dañ koy bàyyi rek moom parce que xam naa ni <laughs> itte yu bëri na lool. ñu ngi lay jaajëfal en tout cas bu baax a baax ci disponibilité bi di wax rek régie bu ñu rek mënee am ñi nga xamante ni ñoom ñoo féetee foofu lee ca Mermoz sacré ku ci mel ni Abdoulaye jara Cissé mhm. euh, bu leen leen mënee am xool li nga xamante ni moo di euh, dépouillement bi foofu naka la tëddee ba xam bureau de vote yi commencé nañ euh, afficher li nga xam ni moom moo di li ñu fa jot a càmbar ndax il faut rappeler que la presse n'est pas autorisée en tout cas dans beaucoup de de, de bureaux pour ñu accéder fa donc il va falloir juste ñu xaar li nga xamante ni moom moo di ñu affiché yooyu les décomptes yi daal di koy taf ñu mën koo mën a ñoom it càmbar jox ñu ko alors Babacar noo évolution bi ba évolution bi mooy euh, si discours yi nag la ëppee. Mm. Euh, man dama yaakaar ni li nga wax léegi si Barthélémy Diaz ak loolu ça veut dire que aujourd'hui euh, en tout cas c'est c'est proche résultat yi dafa jege mais suñu rôle mooy di wane ni on peut pas empêcher nit ñi di joxe résultat à partir des bureaux de vote loolu dëgg la parce que la presse souvent résultat yi dañ koy affiché si bunt yi donc ku nekk am nga accès au résultat mm-hmm. du lu ñu nëbb donc ça veut dire que à partir de là ku bëgg a am résultat mën nga ko am na na muy demee mais nag je crois que ça n'est pas tout aujourd'hui fi ñu toll pour man moment bii mooy moment bii xam ni moom moo gën a crucial te il faut pas que également l'opposition donne euh, parce que keroog dañ doon dañ doon euh, dañ doon attaqué dañ doon reproché à Boun Abdallah Dionne en 2019 di ne dafa joxe woon résultat yi moom sax nee na opposition moo njëkk a wax waaye la ñu jàppoon que ni moom moo njëkk a wax ba affaire bi indiwoon problème ba ñëpp ñëpp wax ni waruñu woon demee noonu mais aujourd'hui on a l'impression que l'opposition veut prendre les devants indi résultat parce que tant que dañ doon wax ni si kàddu rek mais bu Barthélemy demee ba passer à l'acte daal di jóg euh, di manifester daal di truc loolu mën na indi problème par rapport ak ñu ànd ak moom parce que dañ koy gëm tamit sa leader bu demee ba mën a taxaw di bàkku ne moo gagné dañ koy gëm moo tax dama yaakaar ni fi ñu toll soreetul soreetul mënul maximum une heure deux heures de temps deux heures de temps maximum Sénégalais yi ku nekk boo voté di nga xam fan nga féete sa candidat fu mu féete moo tax daal je crois que nañu gën a woote dal daal di xam ni léegi affaire yi leer. Mm-hmm. léegi mais lu doy waar nag moo am HLM. Euh, parce que Hawa euh, Konaté mi ñu koy yëgal maa ngi doon leen wax sànq euh, ce ce manque de de d' enveloppe cette pénurie d' enveloppe bi nga xam ni moo am au niveau de ce centre de vote bu ay niin Euh, foofu la ca ca ca ca HLM ñi ngi wax ne malheureusement euh, dañu rekk ñibbi ñi nga xamante ne ñoom ñoo waroon voté mhm. ñooñu dañoo mujjee ñibbi seen kër parce que enveloppe amul mu doon nag mooy HLM euh, donc HLM la muy centre bi nga xamante ne ñu ngi koy woowee centre Aïnine Fall foofu la Aïnine Fall mooy centre bi ni moo fa gën a mag voilà donc foofu la xawaa nekk xamal ñu info xibaar boobu lañ ñu xamal ni sànq am na ñu bëri mhm. ñu nekk ci biir bi 18 heures jotee ñu tëj bunt yi am ñu bëri. mbooloo mu ni toll sax wala lu ëpp lu nekk ci biir nekk ci biti. ñooñu nag bu ñu demee ba manqué enveloppe ça pose vraiment un problème. oui ça veut que sur la logistique là on a parce que dañ ne ñoom sax ñi nga xam ñoo waroon voté dañu mujjee ñibbi seen. parce que mën naa comprendre sax ñi nekk ci biti. au delà de 18 heures comme am na ñu bari ñu nekk ci ran yi. Mhm. te voté guñu ñooñu ñu tëj bunt bi tere leen mais ñu jot a ba pare bu ñu bañee voté ndax manque d' enveloppe. alors là ça peut poser quand même des problèmes. Ouais. oui Babacar loolu loo ci ah gis parce que tamit lii bokk na ci li nga xamante ni mën na handicapé euh, su ma juumul moom ak yenn vote ñenn ñi euh, parce que koo xamante ni bëgg na voté euh, xamuñu itam foo ko foofu kam moo fa nekk candidat boo xam moo ëpp dayo est-ce que loolu mënul handicapé bien sûr li nga xamante ni moom moo di électorat bi non c'est que dafa jaaduwul ci ay élections. parce que sànq rek suñu njëkk a ak ki ay enveloppe di ñàkk. di manqué dëgg la waaw loolu moom dafa jaaduwul. quelle que soit la situation qui prévaut là-bas. parce que toujours je crois que y' a un surplus sax d' bu fekkee ci mbirum. am na marge dama xamul pourcentage bi a une marge de 15 pour cent mun na dem ba 15 pour cent. ça veut dire que donc loolu prévoir nañu que vraiment dayoo bu doy pour que bulletin bañ a manqué. Mm-hmm. pour que aussi ay enveloppe bañ a mhm. loolu defe naa ay détails la yoo xam ne quand même war nañ ko corriger. même bu fekkee ni mën nañ comprendre quand même doy waayu élection yi ni bureau de vote yi bëree lim naa ko sànq centre de yi bëree noonu xëy na mu am quelques impairs et quelques défaillances mais nag quand même nit ñi di voté. ba fi nit ñi gën a bëree muy manqué ay enveloppe. du yoon loolu wax dëgg yàlla du yoon. du yoon loolu moom bu fekkee firndewu na daal. loolu du yoon. waaw euh, je pense que lu lu firnde la lu lu am euh, firnde la ndax Hawa euh, Konaté foofu lee ca HLM. est-ce que imaginer nga ak wot fi mu toll ci nit. Mhm, mhm. am na réew yoo xam ni ay bakkan rot na fa ngir bëgg mun a vote ji ki nga xam ne nag lijjanti na moom bokk ci réew mi lijjanti ba dem bindu ji jóg ni ñëw day vote dara talewu ko vote lu dul enveloppe bu ñàkk. mais quand même loolu loolu loolu loolu recul la sax nag vraiment du voilà du loo xam boo xamante ni day wane ni réew mi mi ngi avancé parce que loolu ay mbir yu xamante ni vraiment lu ñu mënul expliquer la ci Sénégal en 2022 euh, Amadou Diaw euh, y a du niveau au niveau de ah, ah. des réseaux sociaux. maa ngi laaj président démb rek ñu déggante la ça va bien jël sama lii di téléphone euh, donc fas yéene rek dëgtal leen ba léegi information yi tukkee ci YouTube bu ñu demee ci kii di Angélique Koura Diouf euh, nee na Diouf Sarr euh, moom du nit jamono ji nag mu ngi daal di làbbali gars yi ci jamono jooju nag keneen kuy wéy ci tuuru Ali Diallo mu ngi jàpp ni nag jamono ji kii di Barthélémy Diaz moom la sénégal yi tànn ngir mu jiite lii di Dakar Moussa Ndiaye nee na pas d'enveloppe bravo ndax loolu jafe-jafe la voté ba heure bii ñu ni enveloppe yi jeex na mu jàpp ni nag loolu am na jafe-jafe bu ñu demee ci bàyyi wilaan wadd mu jàpp ni nag jamono ji tendance yi kii di sëriñ boobu nag boo moyul moom moo nekk ci yoon rek ngir daal di gagné mm-hmm. yi di Mhm. yi di élection yi allez-y Diaw ñu lay jaajëfal bu baax a baax alors euh, xam naa du ñàkk ñu jëlaat la léegi rek ci ci ci kanam euh, dañuy daal di nag dalal suñu beneen invité bi nga xamante ni Babacar Dione euh, je pense que <laughs> mën nga ñu ko présenter présenter ko mën nañu ko bàyyi yi ñu ngi lay di la dalal tey ci soirée électorale fii ci 2STV mhm. merci beaucoup Astou maa ngi lay nuyu yow tamit di la gërëm Euh, di nuyu équipe bu 2STV bi yëpp tàmbale ko ci kilifa gi élage Hadj grand El Hadj <laughs> euh, di leen ñaanal suñu borom barkeel seen liggéey di nuyu nag aussi référence yi ma fekk ci plateau bi ku ci mel ne grand Momar jong Babacar ndax euh, ay référence yoo xam ni saa yoo leen dégloo ci plateau ñuy waxtaan am loo ci jëlee waaw ah, je crois que so Sénégal soxla na loolu surtout jamono yi nga xam ne ñu ngi koy dund ak soubresaut yu yu metti yi réew miy dund soxla nañ ñu mel ni yéen soxla nañu seen xalaat mm-hmm. yàlla na suñu borom gën a sellal xalaat bi. amiin euh, di nuyu askanu Sénégal. Mhm. aussi di leen remercier di leen félicité ndax euh, saa yu élection di waaj jot je crois que ñun ñëpp ci njàqare la ñuy nekk. ñun ñëpp dañuy tiit. ndax dañ daan dëkk bi dina takk dëkk bi dina boy mais a euh, chaque fois peuple bi daf ñuy bett ndax dina wone maturité am dina dem voté ji dinañu génn en masse voté ji dinañu sécuriser seen élection te dinañu taxaw pour seen. pour euh, li nga xam moom moom la euh, moom la ñu exprimer ci urne yi pour que ñu ñu ñu doxal loolu kon loolu vraiment bu amee war nañu sant askan bi gërëm leen euh, di sant aussi Yewwi Askan bi nga xam ni coalition triple XL du ma wax sa double X triple XL ay kilifa yu mag a mag sekk ko def campagne bu mucc ayib aussi def liggéey bu mucc ayib aussi am taxawaay bu rafet ci réew mi mm. kon ñu ngi leen di gërëm ñoom it ñëpp di leen ñaanal mëbët yu rafet yu ñu am ci réew mi yàlla na suñu boroom jox euh, moyens yu ñu ko yu ko yu ko mottalee. ba génne askanu Sénégal ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund. Mm-hmm. ñu ñu ñu wax itam ci li nga xamante ni moom moo di euh, journée bi naka nga gisee li nga xam ni moom moo di euh, vote yi ak déroulement bi parce que depuis ce matin gox yi certes du gox yëpp mais en tout cas gox bu ci nekk ak façon bi nga xamante ni noonu la lii di vote yi déroulé woo foofu. ok foofu je crois que li xew tey ñëpp gis nañ ko. Mm-hmm. te bi fi président Macky Sall nekkee ba léegi aussi loolu mooy xew ci élection euh, élection yoo xam ni je crois que bu ñu rappeler histoire tuuti rek yu ñu toxol la toxalaat élection yi ñu waroon organiser en 2019 nous sommes aujourd'hui en 2022 donc élection la yu ñu toxal toxalaat ko toxal ko lu ëpp deux ans loo xam ne mësul am dans l'histoire politique du Sénégal mm. maire yi seen mandat jeex ñu toog deux ans di exercer le pouvoir euh, d'une manière véritablement euh, anormale Euh, kon loolu déjà day wane ne nguur gi parewul woon pour dem ci ay élections te manquement yi ñuy noté tey ba ñu xëyee dëpp ci suba euh, bureau yi war a ubbi démarré manquement yi ñuy noté yëpp day wane ne nguur gi pare wu ñu woon tey pour dem ay élections mais ils étaient forcés à organiser ces élections manquement yu mu ci cité am yu mu ci mën a cité déjà Grand Yoff bi ñu xëyee dugg nañ ci ay bureau de vote yoo xam ni ay briques la ñu tegalee teg ci bulletin yi. ñun suñu élément Yewwi Askan Wi fa nekk ñoo dem lu luyeel leen ay table ñëw organiser bureau bi pour mu nekk un bureau normal véritablement boo xam ni citoyen bi war na mën a dugg exercer correctement son son son son devoir citoyen c'est-à-dire accomplir son vote. Euh, ak yeneen manquement yi xam ne yëpp dinañ ci ñëw ci biir mais ngoone euh, li ma mën a wax rek mooy nguur gi pare woon pour dem ay élection bëggul woon pour dem ay élection mais la pression était telle qu'il fallait qu'il organise ces élections léegi nag dañ ko organiser na mu leen neexee ak tous ces manquements il voulait créer le chaos mais peuple bi moo leen moo leen accompagner wul ci loolu moo tax ñu organiser élection yi de cette manière mais en tout cas il voulait créer le chaos il voulait organiser un désordre boo xam ne véritablement comme qu'ils qu'ils savent pertinemment qu'ils allaient perdre ces élections bëgguñu woon ces élections soient organisées d'une la ñu noté ci élections yi ci bu ñu mënee euh, rek xoolal fi nga xamante ni moom moo di euh, suñu reporter yi euh, suñu reporter yi nañ ñu ko ñu leen xoolal donc ci terrain bi ñu xool yenn ci centre yi bureau de vote yi nga xamante ni donc ñoom. ñi ngi ci ñi ngi commencé di def dépouillement am na ñoo xamante ne sax commencé nañ afficher afficher seen résultat donc ñu xool tendance yi soxla nañ ko loolu kumba gisee bu ñu mënee jàppale ci loolu donc mmh. euh, jottalil ñu ñi nga xamante ni ñoom ñoo féete foofu le euh, ca lu ci mel ni yoof parce que yoof bi ñu commencé dépouillement bi euh, xaw na yàgg ñu ci mel ni également Euh, foofu la ca Baobab également euh, du ci mel ni euh, Mermoz dépouillement yi daal mi ngi mel ni mi ngi commencé en tout cas ndax dafa mel ni vingt heures bi moo nekkoon délai bu mujj ci ci li ñu leen joxoon donc au niveau de la régie bu ñu mënee am quelque reporters ñu daal di leen di jël moom bu amee bu nekkee am nga looy sànni rek par rapport ak li nga xam ni soulevé nañ ko fi léegi muy manque manquement yi nga xamante ni ñoom waa Yewwi Askan Wi def nañ constat bi muy wàllum lii di bulletin yeeg lu jëm ci li ñu doon wax tamit tout à l'heure mbirum enveloppe il faut le rappeler euh, surtout aux autorités qui nous suivent fële ca HLM am na euh, problème enveloppe ba tax ñu daal di rek euh, ñenn ñi ñibbi seen kër yi tey loolu ak jamono ji ñu toll ñuy waajax ñuy xaar résultat lan moo nekk vraiment luñ ci mën a jàngat. bon enfin loo xam ne la mënoon nañ ko séntu ci ay élections yu toll nii mu toll ci yenn jafe-jafe yi jusqu'à une certaine mesure nag. mais ay enveloppe yu manqué moom loolu moom jaaduwul yenuwul maanaam. ta mm. ta vraiment un problème. Euh... Mmh. allez-y. allez-y loolu yenuwul loolu wax dëgg yàlla yenuwul maanaam euh, gis naa sa dégg naa sànq sax ci ay reporter ñu ni Pikine gis nañ fa ay bulletins yoo xam ni candidat Abdoulaye Diouf Sarr la à Dakar. xam nga ça ça pose un problème. ay yoo xam ne la wax dëgg yàlla xaaruñu ko woon ci élection yu mel nii. Mhm. même bu fekkee ni boobu ba léegi nag amul yenn dayoo yi. ba nga perturbé na le déroulement du vote wala mu mën a affecté la sincérité du mhm. xam nga nag waxu coalition ak man waxu journaliste mën na bañ a nekk benn parce que. Euh, ñoom xëy na <laughs> am nañu ay information yu leen di remonté uh-huh. mais ñun information yi ñu koy am ñu ngi tukkee rek ci confrères yi nga xam ni ñoo nekk sur le terrain moo xam ñu nekk 2STV bi comme moo xam ñu nekk ci yeneen organes ku ci mel ni kii ñu nekk euh, en ligne ñi ngi lay nuyu allo oui allo allo euh, alors kan lañu kan mooy wuyook ñun kan moo nekk en ligne actuellement c'est qui pardon euh, Cheikh Omar Diong depuis Podor Cheikh Omar Diong yow yaa ngi euh, Podor donc lan moo nekk foofu li nga xamante ni moom moo di tendance yi actuellement waaw alhamdulilah fu mu toll nii tendance dafa mel ni résultat yi commencé na wàcc pour le moment donc euh, lu ñu ràññee nag euh, vraiment ñi nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar moom la ñu am yaakaar déjà gars yi ñu ngi commencé di jubilé donc centre yi ci gën a bëre donc moom moo gagné ci large victoire fu mu toll nii nag dañuy xaar résultat final bi ci centre yëpp parce que ba léegi am na ay centre yi nga xamante ni tëjooguñu ñu ngi décompté ba léegi. est-ce que mën nañ am chiffres yi Cheikh nañ am les chiffres yi nga xam ne bureau de vote yi moom lañ affiché. waaw moo tax moom laa la doon wax léegi léegi donc am na ay centre yi nga xamante ni ba tey pareeguñu mais xam naa ni feeg su kanam incha allah rabi dinañu dellu si waat donc pour mën a jot ay chiffres exacts. Mm-hmm. parce que dañu génn rek di di di proclamer victoire daal. effectivement effectivement dañu génn di proclamer victoire parce que ni ñoom ñëpp donc fu mu toll nii dañoo am yaakaar ni que seen candidat vraiment mooy remporter élection yi. moo tax it euh, boo xoolee ñi nga xamante ne mooy benn bokk yaakaar ñoom ñëpp ñoo ngi génn ci mbedd yi commencé jubilé déjà mais résultat final bi ba léegi nag génnoogul ba léegi. d' accord ñu lay remercier dinañ la jëlaat ci kanam tuuti euh, Cheikh Oumar Diong rappelé que ni euh, yaa ñu teewal foofu ca Podor donc Podor itam bokk ci ville yi nga xam ne ville yu am enjeu la Babacar. Podor waaw xam nga xam nga boo xoolee li may wax léegi si résultat yi c' est que mënul ñàkk. xam nga dañu nekk ci élection local et puis nit ñi jegante jegante loolu te ku nekk aussi trafic trafic euh, d'influence bi day day joué c'est normal mais man euh, li tax sama xel dal que ni nu mu mën a demee rek dëgg mooy mujjee mooy que ni Sénégal ñëpp d'accord nañ ni manquement yi euh, yi ma Maodo Diakhaté wax mooy c'est vrai c'est vrai que loolu warul mën a nekkati sax ci élection ak bu mu mën a doon. Hmm. bu mu mën a doon parce que quand même Sénégal bi ñu yàggee voté yàgg nañu xam nañu même dañuy dañuy gëmm sax. pour distribuer les euh, le matériel électoral et tout ça. Mm. on peut pas comprendre on peut pas comprendre que ñu xam ni 15000